di julli ci yonante bi bi mu ñu mayee fekkeek tal ah li ñu doon def tey comme que génn nañ ci alhamdulilahi rabil alamin dañuy sant yàlla man maa ngi tudd Cheikh Ahmadou ma Mboup di président association formation insertion des lutteurs du Sénégal waa waaw li ñu waxoon ci biir rek euh, parce que la répétition et pédagogique jotoon nañ ko wax lañuy tënkaat rek comme que euh, waxoon nañ ci maanaam tey euh, association FILS mi ngi tudd formation insertion de lutteurs du Sénégal man ma nekk président bi yàlla def ma nekkoon bitim réew lii njëriñu formation professionnelle bi ma fa nekkee agence bi nga xam ni tey ñoo ma recruté woon pour ma liggéey ak ñoom. dañu ma ne woon balaay dara di am il faut nga am formation professionnelle ba pare ci lañ ma formé 6 mois tàggat ma mais tukki jom la ñibbi si fula la ma def fa carrière 10 ans comme formation euh, sécurité garde corps rapproché ñibbi si Sénégal bi ma ñëwee nekk un promoteur de lutte parce que bi ma ñëwee li ma jëkk def mooy dama dagg licence CNG di tëgg ay gala de lutte mais ma dem ba gis ni y a beaucoup de lutteurs au Sénégal te mbëri ñu ci bëri tey ñi ngi pratiquer sport bi nañ toog ay at du ñu bëri te tey jii bu fekkee ni tey da nga entraîné am doole bëree woo tamit amoo métier buñ la encadré wu rek mën na la dugal ci leneen franchement tey jii nii euh, bi ñu ñëwee jooy ma seen ay problème ma waxtaan ceeg waa CNG de la lutte tey ñoom ñu saluer affaire boobu noonu ma ñëw ñu taxawal kuréel bii nii man ak waa association FILS seeti ci le ministre Dame Diop le ministre de la formation professionnelle mu rafetlu ko ne li mission la boo xam ni président de la république moom la ko santoon pour mu war a mën a wër écurie pour def ko tey ñun bu ñu ñëwee en tant qu'une association am suñuy récépissé légal moom loolu dinañu ci jàppale taxawuñu te nag yàlla def na bëri nañ ci ay partenaires yoo xam ne moom moo leen jox instruction ñu mel ne ONFP ANAMO euh, direction de l' emploi ñoom ñëpp ñu si ak ñoom ay convention waaye tey ji ñuy wax ni waa 3FPT ñi ngi sant madame Abissé mi nga xam ni c' la directrice tey moom moo ñu financé 20 lutteurs yi nga xam ni ñoom lañ doon ñoom lañ formé doon leen jox seen liasse si garde corps rapproché. waaw formation la boo xam ni duré na 15 jours. mais euh, dañ ko def euh, formation accélérée ki leen ki leen ko doon defal aussi nekk ki nga xam ni tey mooy Matar Diop Fit Protection International ki nga xam ni tey bépp professionnel bu tey qualifié ci garde corps rapproché Sénégal moom moo la formé moom moo leen ko defal mu nekk formation boo xam ne aussi ñi ciy gërëm état parce que tey mbër bi bu jogoon di ko dem di ko fayali boppam dina fay 500 ba 600 mille mais tey bu ñu ñëwee adhérer FILS ñu defal leen ko gratuitement liggéey la boo xam ne tey association FILS loolu mooy yileem loolu la bëgg wër Sénégal yëpp ñu lancé message le président de la République li nga xam ni bërka démb moom nee na déglu na ko muy méttitu xale yi di méttitu jeunesse bi tey ne jóg na pour jàppale leen ci 2021 2022 2023 tey loolu noonu nga xam ne bëgg na leen a jàppale ñun tey daf ñu si fekk si depuis 2011 ba 2021 2016 def nañ si forum bu mag ba 2021 10 ans ci ginnaaw FILS mi ngi jóg fépp fu ndaw nekk mu koy jàppale kon moom it ñu koy tàllal loxo tey mu ñëw taxawu FILS ba fi ñu bëgg àgg mooy yéene gi ñu am mooy xale fu mu nekk rek parce que la jeunesse c'est l'avenir de pays fu ñu mën a nekk ñu former leen bu ñu leen former ba pare jéem a xool nan lañ leen di jàppalee ba tey ñu am xëy ñun loolu mooy suñu yille loolu mooy suñu yite loolu lañ bëgg def Sénégal wër 14 régions yëpp ñu ngi gërëm 3FPT di di gërëm ki nga xam ni tey moom la directrice bi yabal mu muy ndaw ju jara yabal ku mat yabal muy Sidiba mi nga xam ne tey guichet de financement individuel moom moo ko géré ñu ngi koy remercier li am mooy 14 régions Sénégal yëpp lañ bëgg a wër parce que tey Sénégal du dakaar rek yéene gi mooy fépp fu lutteur nekk tey jeune ne fa am nañu yéene ànd ceeg partenaires yi nii comme li di Ba wax sànq te yéene gi mu am tey ku ne xam na ne 3FPT moo yor fonds de financement de la formation professionnelle et technique tey ñoom am nañu yéene signé ñun convention ni ko président de la république bëggee fépp fu mbër nekk rek am nañu yéene fekk la fa former la jéem a dimbali la ba nga am xëy loolu mooy suñu yéene ñun. yéene googu lañu am euh, jili gis bi ba mu jàllee bari na ci mbër yoo xamante ne ay champion lañ euh, am jox bi nga leen jëm jébal seen sax ci la ñu am li nga xamante ni mooy xëy te ñoom xale yëpp li seen bébét mooy xëy nga gis actuellement réew mi fi mu toll bari na ci loo xamante ni jot na xew ci ginnaaw ñu ciy tudd ñi nga xamante ne ñooy mbër xale yi nga xam ne jaar nañ sa loxo ci formation bi ban conseil nga leen di jox ci par rapport ak loolu. li ma leen di conseillé mooy li may wax rek xam nga tey ki ñu formé nit ki da nga war a am formation professionnelle jàng na ba am diplôme am muy ay certificat BFM baccalauréat ak yooyu noonu yëpp tey mbër mi nga xam ni tey wala jeune bi ñëw ba ba ñu defal la formation ba nga am attestation tey liaas la boo xam ni boo ko amee tey lii amoon jamono gi passé man jàpp naa ne benn mbër bokku ci les lutteurs ne sont pas des nervis actuellement les lutteurs yi nga xam ne tey formé nañ leen am ci appui état tey ils sont des professionnels li ñuy ñaan kay mooy loolu pour mu gën a baax li ñuy ñaan kilifa réew mi mu gën a dooleel tey euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yor affaire formation professionnelle di gën a dooleel association fis ba fépp fu lutteur nekk rek buñ la formee danañ la tàggat ba li na ci yow dina gën a baax ba nga gën a mën a ba nga gën a xam métier li muy signifié jàppale la aussi tamit nga am emploi kooku daal mooy yéene association FILS ñun ñaan yàlla daal yàlla suñu borom mi nga xam ne tey lii yëpp moom la mu gën ñu jàppale ba. li ñu bëgg suñu borom dimbali ñu ci mais li ñu sañoon daal fu ndaw nekk rek dina am métier dina am xëy loolu moo tax a jóg association FILS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 xam la liggéey bu nekk ci seen yaram wala déet bu ngeen jokkoo ak Serigne Seex borom taw feex leeral a amee seen i soxlay bopp jàpp ab yoon di a tukki leerlu leen ci moom ba a tuxu a dugg ci soxna a moo ci teg loxo bu dee ñi bëgg xam seen bidiw ba xam kañ ak kañ la sàkk sarax kañ ak kañ la ñaan loog nag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 ba mu leer nañ. ak foo mën di nekk. foo man di féete. jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa.